jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf internet yi ak euh, auditeurs yi ñoom sa mbay ak ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax Abdoulaye loolu ku ne mën na ko de loo neex rek def <laughs> Abdoulaye yaa yebaate nag maa ngi nuyu Diagne di nuyu Ndiaye bu baax a baax. noo def Diagne. <laughs> bu nekk di moytu bu baax sant yàlla macha allah. di ziar di ziar Mamadou Ndiaye ziar Maysa Mbaye ak Abdoulaye Diop. dama xëy dafa yàgg dama ndekki dafa ndekkeegul la. waaw ok Ablaye Diop kay lu ko neex lay def. yi mu def mu jëfu ndekki jëfu jëfu ñàkk ndekki la. Ah, wala jëfu mag mu réew. jël ordinateur yi di ko sànni lu ne nga koy def ci kër gi loolu lu la ci xiir. ñu ngi lay ziar Ndiaye rek <laughs> ñu ngi lay ziar baax Ndiaye. ngi leen di delloo ziar bu baax a baax yéen la bett waaye man bett moom. ah yëf Youssou loo ci yàq da koy fay de. ah mais xam nga njóobeen dañoo ami rab. ah ku nekk toujours ba sa bos di génn. Ah. <laughs> moom xëy na ba sa mardi matin lay bañ. <laughs> tey fii xoolal a sakk rek. waaye yow kii de waaye kii dafa neex kay. <laughs> gis nga gis nga sama kër ni xoola xoola nee fii mooy kër nijaayam la nee lu ko neex lay def. ok lay moo lay fekk ngay studio di enregistré mu fay lampe bi ne la sama courant nijaay bi daa <laughs> si. loolu de bu ko defee du ma benn. fii nga may fekk may animé àdduna yëpp toog déglu yow nga fay lamb bi na émission yàqu courant yi. ah moom dafay def loolu dañ ko buñ dañ kii dañ maa fayal sama bor. noo dëggantaan moom yàqum courant li ma yàq. <laughs> émission bu kenn dégluwul. <laughs> astafurlah te mooy premier naa la bu baax Ababacar. maa la koy delloo. Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Diagne ñu ngi nuyu waa Sénégal. ah, ah ñu dugg ci partenaire yi. nañu tàmbalee ak Jili CSB. moo koy faral di wax. promotion ci la ñu nekk jamono ji 4 décembre la ñu ko tàmbali woon dañuy ànd ak waa Sénégal ci promotion bi ba décembre promotion bi nan la mooy téléphone techno bu ngeen bëgg bu baax bi te garantie wóor te wér dem leen ci jili CSB di ngeen ko fa mën a am ñi ngi fépp nag ci Ndakaaru am na jili CSB Colobane am na CSB techno VIP shop Parcelles Assainies mais également jili CSB mi ngi leen di xaar ci foire de Dakar bi ak euh, promotion bu am doole cadeau yu neex a neex réduction ci téléphone portable yi loolu 132 10 10 77 545 84 64 84 84 wala 33 821 41 25 di leen gërëm bu baax a baax ñoom euh, waa CSB. ana waa créole. ñi ngi fi savon créole di saabu boo xamante ne ci kenn dootu ko présenter ci Sénégal ndax li ñu bëgg ci saabu moo nekk ci créole am na créole carotte miel wala citron saabu bu ay lool ci di la tàggale ak ay boutons acné pores dilatés taches noires peau grasse c'est un savon unisexe c'est un savon gommant également savon créole 33 822 99 17 77 516 93 49. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal. nga xamante ne ji ay champion la ñu ci wàllu sanitaire matériel tuyauterie plomberie loo ci bëgg demal ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal jamono ji nag ñoo ngi bawal ndax showroom bu mag la ñu ubbi ca Touba ñoom waa CCPS mi ngi rond point héliport euh, doo ko laajte ndax booy taxawee foofu rek da nga koy gis mu yànji lool rafet lool lu ngeen soxla ci matériel mooy euh, mo ca foofu ca CCPS ngeen ko mën a amee ñi nga xam ne dañoo nekk ci tool bëgg matériel irrigation marque yu baax yi ma nga ca comptoir commercial 48 12 77 082 31 18. Diagne c'est ça. C'est ça. batterie automobile bu mag bu baax bu garantie bu original bi nga xamante ne ji moo noppal borom oto yi mooy batterie automobile Sisa batterie qualité supérieure original te garantie batterie automobile Sisa si Cap Foire ci wetu gendarmerie bu Foire bi fa la ñu nekk jaaykatu euh, accessoire automobile bu ngeen dem laaj leen ko batterie automobile Sisa numéro téléphone bi mooy 33 867 20 22 77 236 51 70 wala 78 222 71 am information wala commande euh, lu ngeen ci soxla di ngeen ko mën a am ci numéro téléphone yooyu. Ndiaye Optique Vision. lunette partout et pour tous di xaar askan wi ci ñi ngi ci promotion bi askan wi di fa ñëw ñu leen di wax ne indi nañu arrivage bu bees ci boutique Optique Vision plus Sénégal yi nekk ci réew mi yëpp ba noppi nag wàññi njëg yi ñu ngi tàmbalee réduction ba ci lépp ngir neexal fête fin d'année mais également dugg ci ak jàmm loolu Optique Vision Sénégal leen di toppandoo wala ñi xam ne dañ leen di pirate di ci def euh, naka sudul noonu Optique Vision Plus Sénégal neex nañu xàmmee bu dee original garantie moderne te yomb ci ñoom la fekk baax ñoom waa Optique Vision Plus Sénégal seen bàkk mooy lunette partout et pour tous. établissement waa Kër Serigne Touba Fallé frère. ñooñu indil gamme bi ñu naan vite fait gamme la boo xamante ne dama koy faral di waxe période boo toll da nga yaakaar ne ci la ëppee Euh, lait de corps yëpp am na ci gaamu vite fait bi mu fekki nag frotté bu efficace bi nga xam ne day baax ci sedd di baax ci tàngaay am na cuuraay bu neex lool ñu naan ko cuuraay vite fait am na mouchoir euh, de poche am na mouchoir de table lépp ci gaam bi nga xam ne établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère indi nañu ko muy gaamu vite fait seen numéro téléphone mooy 77 555 11 11. fin d'année la ñu nekk ñëpp daw wuti Infinix. Infinix moom it ñëw euh, ak euh, xéewal gu neex a neex Infinix yaa ngi doon dégg ay Hot 30i léegi nag indi nañu Hot 40i indi beneen bu ñu naan Note 30 disponible partout ci Dakar ak ci région yëpp téléphone Infinix bu bees bi boo ko jëndee Orange da lay may 10 giga de connexion comme cadeau de bienvenue mais également mën nga gagné ticket tombola boo mën nga am kon ticket tombola boo xam ne dina la permettre nga gagné soit scooter ordinateur portable cuisinier ay micro-ondes ay téléphone portable ak yeneen loo am am na Infinix Smart 8 HD ak ni ma ko waxee sànq Infinix Hot 40i wala Note 30 ayca léegi rek ci yoon bi may ñëw am na ku may naa ma man de bëgguma woon dem ca Kaan ba waaye euh, li nga xam ne moom mooy promotion euh, Africa Fly Tour bi tax na sama xel dem Kaan. mais dafa yomb te neex dafa garanti te wóor. mooy yoon hmm. bi gaaw mooy ànd ak Africa Fly Tour dem Côte d'Ivoire seetaani Coupe d'Afrique bi gunge gaynde yi Africa Fly Tour di wax ngay particulier wala ñi nga xam ne ay entreprise lañu bëgg a yóbbu euh, ay nit ñu bari foofu ca Côte d'Ivoire ngeen ñu seetaani Africa Fly Tour daf leen ko yombalal am ngeen pack silver diamond wala gold jours nga bëgg def Côte d'Ivoire 20 jours ba ci 30 jours demal seeti waa Africa Fly Tour ñoo lay yóbbu aller retour ñoo lay héberger en demi pension yore la sa transport may la ticket nga dem seetaani euh, match équipe nationale bu Sénégal may la également mayo Africa Fly Tour c'est numéro téléphone 78 652 51 51 77 027 22 22 wala 33 858 77 52 Africa Fly Tour avenue Cheikh Anta Diop immeuble promo import foofu la ñu nekk ñu ngi jàkkaarloo ak école Manguier 2 Mm-hmm. njig ah. jeex ñu ngi ñu ngi bëgg ci partenaire bu baax a baax. xam beneen bu des. ki sama xarit la. Ah. ma nga nekk France. waaw mais RFM la am ni en direct. ci otoom. Gap waaw moom na may war nii de cee Gap. mu ngi France nii mais dafa mel ni RFM la ma envoyé ni en direct de. waaw mais bi application bi la yaakaar. Ah, application bi la am noonu application bi la waaw. encore ñoom fañ nekk noonu ñoom mën nañu ko fa am. ah man dama na. waaye de. <laughs> yow mii Ndiaye ñetti fan yoo absenté da ngaa gën Ndiaye. Ndiaye lan da am laqoon naa la jumay Masalikul Jinaan. ci privé <laughs> wala yow vi va et vient yi. <laughs> Matar passe euh, tey la anniversaire ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire. ah, ah macha allah passe partout waaw. ah ni moom la judd rek moom la judd. passe paas mi toog fii. waaw. tey la anniversaire comme tey tey la judd. ngénte ngénte paas poto yaa ni tey ci man. yaa bàyyoo kes ce qu'il la kii tuye. waaw ah, ci lan. Ah, paas ma xam ne moom ak cere maase ak laalo gën a fekkee nga ngénte. man sama papa ma nettali ngénte paas. <laughs> ñoom ñoom bi ñu nekkee xale. paas di mag. <laughs> ay ci ngi koy souhaité un bon anniversaire ah. lu mu dund dayul. Euh, paas ne dafa jeex. Hmm? jeex na jeex na. Ah. amatoo dara. waaw gis nga daan ñambaas palais de l'immobilier. non kooku du ci génn de. daa hmm. ah, kooku mu ngi ci kooku mooy partenaire bi njëkk bi. Hmm. madame Ba hmm. eh. vaut bien en tête en toute sécurité. wallaahi te xam nga dañuy dem ci grand bal. waaw te xam nga grand bal dafa nekk événement boo xam ne man dama ci yëg sama bopp. genre ay ñoom madame Ba yeeg yooyu dama leen wax awma lu ma sol awma dàll ak yooyu. dégg dégg dañuy participer. ci grand bal lu ne laa ci am. grand bal yow grand bal bi wax na balaa muy ñëw di nga teg. Youssou grand bal moom man moom fan la. bi yoon euh, premier janvier dañ koy yóbbu fi nga xam moom mooy le soirée de VIP la soirée des VIP mooy am ci place du souvenir le 6 ñu yóbbu Esplanade Grand Théâtre mooy grand bal bi. bu dul arena rek baax na. waaw arena daal la xam dootuma fa dellu. Ndiaye grand bal daf may métti nag trop. arena moom waaj a ñëw eh. ak Babacar Fall. seen image yi yàgg yi dañ koy indiwaat booy yi noo def ñu indiwaat ko. dem nga ni maa sooxe booy ñu may sa may mii wóoluma ko sa grand bal Ndiaye ak Babacar Fall dinañ ñëwaat. ñu baal pecc eh, grand bu njëkk. mais Fall moom pecc kat <laughs> Fall moom fa na bu nekkutoon bu nekkutoon kii takkatu xabaar kii lay dem bokk bale bale sa sorano <laughs> Fall daa bëgg baal. yow lu classe bu njëkk bi wax fait multi service. kii day Aba. lii nag mooy xalaas. Hmm. waaw. booy bi daal multi service la yor. di góor góor lu def ay transfert d'argent ñu koy teggi ko teggi dil di ko teggi dil ba mu am problème mu deux millions et quelques. ci ñi koy sàcc sax am na ci koo xamante ne moom jàpp na ne ñoo dëkk ndax day tëj néegam bàyyi fa xaalis bu ñëwee fekk ñu tijji néeg ba jël xaalis. ba du xam hmm. kan la. booleeg nag transaction yi muy def ci multi service bi. gars yi ñëw di ko nax maanaam mi ngi gàbbu tollu ci deux millions ak lu teg. <laughs> déglul waa benn ndaw laa boo xam ne dama nekk di liggéey. naa ne liggéeyu jàmbur laa yor te liggéeyu transfert d'argent ma commencé ko avant tabaski ba tey mais depuis boobu ba tey dama si biir ay cas yu bëri cas nag mooy ay transfert d'argent yoo xam ne yenn yi ay arnaque la yenn yi erreur de transaction la yenn ni tamit mu nekk ay vol yoo xam ne dama daf ma dal ci sama nekk arnaque yi moom yàggoon na ma dal dal na ma ñaari yoon yoo mais bi ma ko dégloo xalaas laay soo ko comprendre que ni noonu la demee mooy comme kaaw ñu ñi ñëw di def dépôt ci ci seen compte andaale benn billet bu xoteeku bi xalaat sax mujjee laa xam woon dégg sax si laay soo ko comprendre après ñoom bu ñu ñëwaatee dañ naan laan maa la joxaat maa la joxoon billet bu xoteeku bi dépôt laa bëgg waroon def nga defal ma retrait comme ça double bi nga leen waroon bi nga leen defaloon dépôt double boobu nga leen perte deux fois la ma ñaar yoon benn bi soixante mille la benn bi quatre-vingt mille ay erreur de transaction yi moom doo sax comprendre parce que booy xool doo mën a xam exactement kan la parce que place bi dafa placé en plus dugg dafa bëri a xam exactement la cas ma dal nag ci sama nekk mën naa ne dafa am ku yoroon sama doublure caabi nekk parce que kër location laa dëkk saa yu moo wàccee damay sama xaalis sama armoire su ma génnee doxi samay course ci la nit ki di jaar sama ginnaaw dugg ci nekk bi daan na jël ay cinquante mille ay cent mille man saa yu ma ñëwee su ma xëyee di liggéey damay liggéey ba ci digg bi su ma xoolee xaalis bi manqué ma yaakaar ni man maay def ay erreur de transaction tamit ndekete mi ngi doon jël par cinquante par cent par cinquante par cent bi ma demee ba commencé bàyyi loolu xel ma changé cellule néeg bi ci laa gis ne loolu amatul ci loolu sax déposé woon naa ci plainte bi amul woon suite mu jiwul woon fenn voilà ma nekk ko xam ne nag depuis ma commencé liggéey ba tey lu ma am damay dugalaat xaalis bi affaire bi demoon na ba toll deux millions yoo xam ne daf ma ay ay ay xaalis bu ma war a fayaat la saa yu ma fayee koo dugalaat ko ci location di ma xaar demoon naa ba sama mag bu jigéen moom dafa doon près trois cent ma wàññi ko xalaatal may fayeeku di fay location sama néeg ak sama néegu yaay di fay près bi trente six mille quatre cent yi après daanu daanaka du ma deseeti dara lépp bi may desee dama koy dugalaat ci ci ci ci ci xaalis bi may liggéey deux millions yooyu may wàññi di wàññi di wàññi di wàññi ba toll si jamono jii nii un million quatre cent mais dafa dama toll foo xam ne attanatuma ko attanatuma ko ko en fait dama sonal trop trop trop ci benn jeune boo xam ne toll na si liggéey toll na si teral ay waajuram mais ba tey gisul boppam ay bor rek lay dëkk di fay ay bor lay dëkk di fay te dama dama dama dama ci sonn carrément dama sonn carrément te li ma nekk di dund nag peut-être ñii dañ comprendre ñeneen ñi duñ comprendre mais dafa métti si man trop dafa métti si man trop man yi ma gën a sonal sax mooy vol yi ñun ba nga xam ne def ma doon dal sama néeg avant maa comprendre fekk nit ki mën naa ne yegg na ma fu ma yàlla sax yeggul li ma teg comprendre ma te nag su ma sañoon ñun ñi ci ci ci li ma nekk di dund nii bu baax baax baax mi ngi noonu de coono boobu la. sàcc dëkkandoo moo gën a mooy béy ji jiitu. comme heure bi daa toll fi ñu enchaîné. nan dem ma jox la beneen. waaw balaa yi naan. Ah, euh, émission bi daa gàtt. bopp bi laa ñëw na. kookan la Bob moo ciy kan. xale bi nekk kii. waaw ah, kii du Aysata. déedéet. kala Salamata ah, Salamata Salamata Salamata Ousmane. Ousmane euh, kii. jàll Salamata Ousmane Diallo. Diallo moo jël meer xaw ma lan ci livre xaw ma lan ak lan ak lan moom mii day jël ay raay rek <laughs> kii ku am ñaan la am na gàllaaj raay yëpp yu ñu teg ci Afrique ci wàllu yooyu moo koy jël. doomu yëmbal la. ñii. ñi ci mënta wax ñu ngi nekk ci biir waxkat yi bokk ñu ci dàq wax xoola kii muy femme lu ñu teg ci Afrique bu jël ko ñëw indi ko. Eh, yow waay déet <laughs> dama koy catu waay nañ dem xalaas gi <laughs> kii carte d'identité dafa réer. Ah. am ku ko for. commettre ci benn bêtise. ba police ñëw. dégg nga carte d'identité bi. waaw damay déglu xalaat ñuy wax ci affaire sàcc moto yeeg affaire triant yeeg. te mu amoon benn xalaat boo xam ne sama frère la dal ci nu mu ko dalee mooy si euh, biir semaine bi passé dama wàcc toog noonu sama néeg sama tant bi ñëw di seet sama sama frère bi ma ne ko ah nekk fii dafa génn si laa dégg muy wax ak sama sama sama papa donc si laa génn ci néeg bi ma gis euh, ay presque ay copains yu bëri ay cinq six personnes ñu taxaw ñu laajte sama frère bi si laa ne sama sama tante bi lu xew ñu ne ah nee nañ dañoo for kàddante sama sama frère bi te bañ ko foree dañoo gis ne dañoo sàcc benn moto te moto bu ñu sàcc waa ji ko sàcc dafa joxe kàddanteem te ma ne ah, ne ah ma leen ma ko kàddante bi te doon sama kàddante bi donc te sama frère bi dafa waddal pièce depuis samedi dafa ko waddal Kër Masar la ko waddalee léegi moom tamit doon xaar dem ay lundi wala mardi yow mu dem euh, def certificat de perte si la si la am benn waay boo xam ne. dafa ñëw sàcc moto si ni mu ko sàccee mooy dafa gis benn booy mu jël booy bi fay jox ko cinquante mille ak carte bi mooy sama carte d'identité bi xam naa waa ji nga xam ne moom moo sàcc moto bi dafa for kàddante bi daf ko for. léegi nag borom moto bi moom nekk na booy boo xam ne tamit ñu koy waxee muusul na parce que waa ji dafa ñëw ne ko dama bëgg nga nga yóbbu ma fenn ma am benn xar bu ma jëlee xar benn xar bu ma jëlee léegi borom moto bi yóbbu ko. mu ne léegi ne borom moto bi dama la jox pièce bi dama la jox sama carte ak cinquante mille dama la jox pièce bi ak mille nga xaar ma fi maa ñëw ma jël benn xar si la waa ji dem. léegi nag problème bi mooy sama frère bi carte bi nga xam ne waa ji sàcc moto bi moom la jox borom moto bi yóbbu moto bi sama pièce bu frère la daf ko pertoon depuis samedi léegi ci si lundi bi si la gars yi ñëw. ñëw suñu kër di laaj sama frère bi sama frère bi ne ah man sama pièce dama ko perte depuis samedi. gars yi ñoom dañoo dem porter plainte mais si ñoom am na koo xam ne xam na sama frère bi. waroon ñu ne avant ngeen dem di porter plainte nañ dem kër ga seen kër ba pare ñu laajte ko. évidemment sama frère bi ne leen dama pet sama pièce. léegi ma ne leen na parce que cas bi toll nañ fii kañ bàyyi ma woo sama benn xarit boo xam ne policier la ñu dem fa. su ma ko woowee bu nekkee mooy fa ñu dem ñu régler cas bi foofu noonu balaa ay porter plainte yëpp di ciy am. ah ñu dem ànd ñu ñëpp ñu dem police bañ nañu police ma expliqué ko sama copain bi mu ne ma léegi dañuy ñëw ci enquêteur bi. mu déglu leen ba ñëwee ci enquêteur bi mu ne ana borom moto bi ñu ko mooy nii ana booy bi ñu ne mooy nii ana sa frère bi mu ne ñu ngi nii ñu taxaw ñu ñëpp mu ne borom moto bi nu mu demee borom moto bi expliqué cas nu mu demee dafa jël moto bi jox ko benn booy booy bi dem jël moto bi dem jox ay copains ñu yóbbu ko ci niñ ko yóbbee mooy dañoo ñëw nax ko jox ko cinquante ak ay na ko xaar ñoo ngi ñëw mu jolle moto yooyu gars yi dem ñu ne ana bi pièce bi. sama frère bi ne leen bàyyi nii ñoom demee ñoo leen sama perte dama dafa war depuis samedi mais dama noo xaar pour déposé ko def certificat de perte. donc dafa amoon lu ma doon expliquer mooy lu ndaw mooy gars yi képp ki nga xam ne da nga perte say pièces say papiers ak lu mënti doon gaawal nga dem police déclarer ko. na parce que tey bu mot amee woon wala bi tamit leneen mënul naa xew lu gën a garaaw boobaa enquête boobaa dañuy ñëw ci enquête te boobaa day gën a garaaw. donc ma gisoon ne loolu. jar nit ñi bàyyi xel. bu tombee samedi wala dimanche demal police ba xam ne yow mii ñëwoon nga fi na parce que diggante bi même ci journée bi mun nga am benn cas te doo xam problème bi mooy que kaan bi jël moto bi jox ko booy bi financement yéene la doon def mais booy bu mu ko jox booy bi mënul liir mënul jàng jàngul liirul te mënul liir boo xoolee na parce que enquêteur bi doo ko ne yow mën nga jàng mënu noonoo enquêteur bi ne ko mën nga liir mënu ko noonoo ba pare booy bi teg ci dafa dër booy bi bu waxee. balaa muy par mën ngaa dem Fatick ba ñëw donc loolu laa amul lu ma doon jàll daal pour nit ñi tamit bàyyi ci xel. Euh, wax na ñaar yu am solo. Mhm. mooy ko sa pièce réer lu mu mën di doon. lu mu xat-xat demal nga déclaré. ou certificat ko. beneen bi ci topp mooy ñi nga xamante ne ji ñoom la yàlla teg ñuy lijjanti wàllu yoon dañuy sóor ne du ñëpp la seen wax yomb. dégg nga nee na booy bi dafa dër. dafa dër waaw. am na ci ñoo xamante ne ji bu ñu xasoo ba jàkkaarloo ak homme de tenue wala juge wala avocat dañuy jaxasoo. dañuy tiit na ñoom nag ci niñ leen formé bokk na ci ñuy bàyyi xel yu mel noonu. Mm-hmm. mais ñu leen gën di bàyyi xel daal ndax nit dina jaaxle ba dugal boppam. Mm-hmm. nit dina ragal ba dugal boppam mais nit dina jaaxle ba dugal boppam. toujours comme daal kii nag Diagne. Mm-hmm. moom le 10 janvier la war a takk jabar. 10 janvier 2024. waaw ci la war a jël soxna. loolu soreetul dara. soriwul. Ah, waaw waaw. quart la di daan dooleem. Mhm. lu mu am dénk ko benn jigéenam bu nekk marché boo xam ne commerçante la. Mhm. di dajale nekk ci projet de mariage bi di dajale di dajale di dajale. ba mhm. am 4 millions. ah jàmbaar. ah jàmbaar moom moom bilaay dem jëli 4 millions yi pour finaliser projet de mariage. projet de mariage loolu kañ la nekk projet mariage. nii hmm. Ndiaye projet da ngay investir ci loo xam ne dina am leneen lu mu génne mariage la mën gu baax te barke. aji ñu dem. investissement gënul loolu. aji tam baax maa ngi jégalu. takk joor moo gën dat fi fay rek. juum ci communication bi maa juum de bul insisté. dem ci femme bi. Ah. récupérer 4 millions yi ñu agressé ko nangu ko. ah fetal lañ ko génne. mais expliqué nañ ñi doon agressé ne leen lii dama ko dajale projet de mariage dama bëgg dama bëgg am soxna ak yooyu. <laughs> déglu ko. doy waar moo ma dal démb si guddi parce que dama war a jël soxna normalement le 10 janvier à Kees léegi ma am xaalis bu ma. doon dajale parce que ab caroleur la am xaalis bu ma doon dajale denc ko sama benn jigéen commerçante waaye léegi démb si guddi ay vingt heures laa dem pour dagi jël xaalis boobu sama jigéen boobu ñëw xaalis muy toll quatre millions dem di récupérer xaalis boobu si ji sama jigéen boobu indi ko pour mun a ñëw waajal sama mariage bi xam ne le 10 janvier la waroon doon jàpp nañ date bi yëpp léegi dama dem jël xaalis bi pour ñëw programme préparer bagage yi ma war a génne pour ay mariage yi demee noonu laa war a def léegi ma jël xaalis bi ñëw jël benn taxi taxi mu may jël euh, ginnaaw si sa université si Anta Diop bu Ndakaaru mu may université foire côté taliwaali bi mu duggee noonu si biir station sel bi foofu laay wàcc foofu laa ma war dem sama benn kër mag wu nekk foofu am lu ma war a waxtaan ak moom léegi ma wàcce taxi bi parce que taxi man bi ne noonu du mun du si côté koñ boobu quoi dafa bu dukkee du am fu muy génn noonu laa wàccee noonu ma dukk si rukk boobu génn balaa may ma tasee quatre personne kenn ki guddeewul ah, ay vingt heures et quelque kenn ki yor pa kenn ki yor xaw ma fetel bu la yor mu ñëw ñu agressé kaf sama jël sama saak bi nga xam ne foofu laa dugal xaalis bi saak bi ma bot saak bi foofu laa dugal sama xaalis bi ñu nangu saak bi saak bi li ci nekk mooy xaalis moo fi ne 4 millions ak euh, sama benn téléphone Samsung euh, ak sama benn marto bu may liggéey ak jama euh, machine bu ñu dakkaro noonu moo nekk ci saak bi ak mètre ñu nangu sama saak bi yóbbu ko ak xaalis bi yëpp loolu doon na ma doon na loo xamante ni li ma li ma touché la parce que am na loo xamante ne góor xaju ci joxe naa samay cadeau pare ñëpp toog di xaar jour boobu ñu defee ma ni xawma xawma lan laa war a wax xawma lan laa war a wax mënuma mën sama bu nii fu ma toll ni mënuma wax ak kenn nii ak nii ak nii ak nii la mën a demee waaw ñi ko def daal a ah, maa ngi am yaakaar ci yéen parce que yéen li nga xam ne yal na réew mi dépp di leen déglu peut-être su ma ko su ma ko waxee fii ah ñi def ñaawti fa bu fekkee dégg nañ samay kàddu ah xanaa dinañ mën a dawal yërmande ñu bañ a tas sama yaakaar ak yaakaar ñeneen parce que aw ma fu ma ko mën a jëlee suñu ay ouvrier lañ te ñëpp xam nañ ne ouvrage dafa métti dañuy tàkkale am dajale am dajale parce que boo dee jamono bi Sénégal toll boo deme ba laal sa loxo doom jàmbur moom il faut nga waajal sa bopp loolu moo ma moo ma ki dugal ma dajale li ma dajale li ma ci jublu woon mooy tey damaa war a xëy dem jënd lal ak almoir yi demee noonu pour préparer ak soxna si war ñu war koo jox yóbbu ay premier cadeau yu demee noon moom moo ma loolu moo ma ci dugal léegi ñu si guddi ñu agressé nangu sama xaalis bi yëpp nangu sama xaalis bi yëpp. nangu xam sama xaalis bi yëpp bàyyi ñu fa dara jaaxle naa jaxasoo naa te xaw ma fan laa ko mën a waxee xaw ma ku ma si mën a jàppale xaw ma ku ma si mën a dimbale ba loolu ma sum mu bañ a yàqu waaw maa ngi tàllal sama loxo ñëpp képp ku ma mën a dimbale si loolu ñu jàppale ma dat boobu pour mu bañ ko bañ parce que jaaxle moo ma tax wax fii bu ma jaaxlewul du ma wax fii damay noppi parce que am na yoo xamante ne góor moomu ko mooy loolu mais affaire bi doy na waar doy na waar boo xamante ni man mënuma comprendre mënuma imaginer nii ndax li façon yi am na si réew mi façon bi ndax am na si réew mi affaire bi mënuma ko wax suba ba lay may tëdd fu ma tëdd mënuma jug sax def dara jaaxle moo ma tax jug fii pour wax sama li ma sama sama métit bi fii yéen waa xalaas yaakaar naa yàlla yaakaar yonent bi yaakaar leen. xalaas. mariage ba moom dootu koy fa beneen bi ci topp mooy li ngay takkee soxna. Mhm. ak li ngay ngéntee sa doom. bul nangu nit jox la ko. li xaalisam la da ko da ko dajale. mais xam nga dafa ñëw pour ñu dimbale ko. ah d' accord d' accord xëy na nag fii moom ku mën dañ laa dimbale. waaw dëgg la mais ñaar yooyu moom na ci góor ak góor góor góor. c'est pour nga indépendant. li ngay takkee sa soxna. am sa kàddu. Mm. ak li ngay ngéntee sa doom. nga responsable ko a gérer sa bopp voilà mu tuutee mu bëri. def ko rek. góor a góor na ci góorgóorlu ba bu combine def defal. Mm-hmm. wallaay dëgg la. Mm-hmm. mën ngaa leb nag boo paree fayee. Mm-hmm. boo mais loolu moom dafay loo xam ne c'est significatif. ah farata la de. léegi nga dégg xale di tëbaka daal ñu ne ko maa la ngénte. waaw ah, waaw. wallaay dëgg la. maa la ngénte. de moom musibal. ngay génn ci jabar ji ba muy ñëw bu du toon mën a du ñëw. laa xawla laa xawt la ay xas la yu fort. li ma ci metti mooy ndeysaan ki muy bëgganteel xam nga Sénégal daa bindoon noo xam ne léegi ñu commencé gaafal xale bu jigéen bi. déedéet waaye nañ ko kenn ko muñal rek tey air ñàgg dafa laxasaayu <laughs> tey. dafa muuru. comme nañu dem ci information yi xaar euh, émission bu mag bi. ayca Ablaye émission bu mag bi Ablaye. <laughs> mën ngaa coupé waa Kër Serigne Touba Fallé frère savon créole CSB mi ci téléphone portable techno yi batterie automobile 600 Real Mix Premium Energy Drink Africa Fly Tour gamme capillaire Canvas Plus accès CPS comptoir commercial de